parce que man munum bokkuma ci ñiy séparer Ousmane Sonko ak Omar Diagne bokkuma ñuy séparer Diomaye Faye ak Omar Diagne parce que depuis février 2024 slogan bi moo doon Sonko mooy Diomaye mais à partir de août 2024 slogan bi dafa war a nekk Ousmane ak Diomaye ñooy Omar Diagne que fu Ousmane Sonko mën a jëlee décret wala jël décision wala toog def live ne député yi à partir du 12 dinañ tal leneen lu dul toog di ma defal motion de censure fu Ousmane Sonko toogee ne lii di HCT lii di conseil économique social environnemental dinañ leen dindi alors que le président était en Chine waaw kon léegi des gens me disent que dañuy xaar ba Diomaye fay ñëw pour jël décision ci li Omar Diagne def mais est-ce que naa fekk nekkul ci yéen du ma leen wax ngeen baal ma de parce que man ku mën a coché ku saaga Sëñ Tuubaa mën a coché ku saaga El Hadji Malick mën a coché ku saaga sëtu yonent bi man bu may wax ci moom duma ko odd Cheikh Omar Diagne doomu haram la man maa ko wax on m'a interdit d'insulter mais kii dinaa ko saaga ndax man taalibe cheikh la dem ba fees xam fan la moom mooy Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif xam lim liggéey ci diine bi lim liggéey ci tarixa bi te ku ne Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif yaakaar naa ne Maroc jeexal nga ko kon man mii di taalibe Cheikh wala bëgg koo doon bu nit laalee li nga xamante ne moom mooy kii di sëtu yonent bi pare laal kii di cousin wu El Hadji Malick si di Serigne Touba Ahmadou Bamba kooku man dama naan doom haram la Cheikh Omar Diagne man je te déclare la guerre à partir d'aujourd'hui bu la traduire li may wax nga ci police Allemagne wala police bu sa tank bes bu tégué Europe fi wallahi walazim azim keroog nga ko nen nga dina mérité ñu ma ci kasso bi ndax bu boba bu ma ci kasso bi sax waaw pourtant nag Cheikh Omar Diagne ni moo fi wax lu bon li yëpp wax fi saaga wax fi li yëpp yonent bi wax ko sëñ Tuuba wax ko ñëpp kuy kilifa diine ba pare bëgg jël coppati ci boppu ñaseen yi teg ko ci bopp murit yi pour taal dëkk bi Sénégal musuñ am problème mu ethnie ni religion ni problème mu tarixa Cheikh Omar Diagne le grand manipulateur di siècle bu ko fee créé waaye léegi à la place monsieur le procureur ka nga xamantene dañ ko nommé tout récemment ñepp tatchu melni ba général Kandé bañ général procureur Diop il est très juste il est très correct qu'est-ce que tu attends pour yow nga jël Omar Diagne ko pourtant à la place en journalisme on dit que le commentaire est libre commentaire la nga dafa ci mi commissaire commentaire nga convoqué ko bàyyiwaat ko mu dem déjà loolu mooy njëkk violation bi gën a garaaw ba pare qu'est-ce qui se passe cheikh euh, euh, commissaire Keita Cheikhouna la tudd te ku wax Cheikhouna laal comi euh, communauté xaadra te seen Touba bu leen umpale ne mës naa nekk xaadra balaa muy def murid muridisme muy muridiya muy jaam bi nangoo dem ci boromam cheikh commissaire Keita Cheikhouna Keita la tudd naa biñ ko tuddee mooy direct cheikhuna eh, eh, bu bu xaadri yi léegi kooku nga jëlaat ko convoqué ko parce que laal nañu laal maamam deretam sot parce que cheikh Ahmadou Bamba maam la ci commissaire Keita xolam sot mu oo comité murid bi ne leen mbàkke ngeen sant ma sant Keita mais gënu leen ma ba bokk ak sëñ Tuuba ànd ak ñoom déposer plainte déposer marche ngeen refuser ko mais bala ngeen koy refuser dafa am lu ci am parce que mom ngeen owoon kérok police bi ngeen di def enquête bi parce que bu nit déposer euh, euh, demande wala information pour def marche mais dañ koy entendre laaj ko itinéraire laaj ko lan moo tax ainsi de suite moom ngeen laajoon parce que mom mo def audition bi parce que commissaire de police la et xam lan lay tontu buñ ko laajee lolu moy indi vendredi matin ngeen ko convoqué à 9h. bi ngeen ko convoqué pourtant commissaire Keita moo leen gën a xam ne képp kuñ convoqué ajuma c'est pour téye la ba leen di commissaire Keita moo leen gën a xam ne bi ngeen ko convoqué vendredi moom munoon naa bañ a dem parce que munoon na dem hôpital commissaire Keita moo yéen a gën a xam ne commissaire Keita munoon naa jékki-jékki def crise ne dafa feebar ñoo bu hôpital comme ni ko Ousmane ko defee woon commissaire Keita munoon naa tel fay téléphone am ak yëpp ut feneen fu mu ba lundi man mii ci sama bop je l'ai appelé au téléphone ne ko doyen mu ne ma ma ne ko yow commissaire nga xam nga ne buñ la yobbo mais dang fay toog ba lundi ne ma sax ma ne ko wa je suis un républicain avec sa façon de parler sax ma ne ko wa ne je suis un républicain j'ai servi mon pays en tant que soldat j'ai servi mon pays en tant que commissaire de police donc, je ne peux pas me permettre de ne pas répondre à la police bi nga commissariat au moins si on m'appelle je vais répondre s'ils vont me tuer ils vont tuer un républicain s'ils vont m'arrêter ils vont arrêter un républicain s'ils vont m'emprisonner ils vont emprisonner un républicain sénégalais yéen a ngi yor ay télé yéen a ngi yor ay rajo di bakkaar rek bakkaar ngeen tout récemment ci Aziz Dabala tey ji yéen a ngi bakkaar ci commissaire Keita prenez commissaire Keita lenn dong moo tax ñu convoqué ko parce que c'est lui qui est ou bien il fait partie des initiateurs ci marche boobu nga xam ne marche bu noble la marche bu noble la ndax laal ngeen maamam laal ngeen pas-pasam laal ngeen ngëm-ngëmam loolu na ko donc, comme actuellement, il fait mal parce qu'il parle avec des arguments, il parle avec des illustrations. commissaire Keita fait mal actuellement. Il fait mal actuellement. Beaucoup len nak mu taxaw place de l'obélix. Comme vous talé lay fam vous avez di bëgg dé. Légui nak beaucoup len mu and ak setu Seigne Touba yi dem taxaw place de l'obélix Pourtant c'est un républicain. Vous ngeen ko téré marché pourtant bi mu leen di uyu si fekk na marche bi demare na Masalikul naan parce que mënoon na fa jullee juma su fa demoon julli jee juma yéen am ngeen fitu fekk sëñ commissaire Keita ànd ak sëtu sëñ Touba ngeen koy jël amu leen fit boobu mais pour éviter tout ça mu dem uyu si leen ngeen ne nag yooyu yaay da ngeen koy humilier humiliation bi ngeen bëgg ci moom ci yéen lay ñëw parce que bu ngeen bëggee jël un commissaire de police. Ousmane Sonko le commissaire Keïta exercé dans ce pays il wàll bi exercé woo ko exercé parce qu'en te connaissant un assassin en te connaissant Ousmane Sonko toi un menteur en te connaissant toi Ousmane Sonko un violeur si bu le la proposer, proposer proposé commissaire qui ba démission am ci wala dàq dang ko doon jël parce que dajalé nga diaspora bi. Seni 50 euros seni 100 euros seni 200 euro. euros dajale nga ko def ko ci sa bir poche demé ko suite beauté dajale nga ko def ko sa pos poche demé ko nga paru dajale nga ko def ko sa bir poche také ko ñettel dajale nga ko def ko sa pos poche créé ci ay cocktail molotov et commissaire Keita guerre motax mu bàyyi wala ñu dakh ko et pourtant ki ko bimu bi méré wuko parce que biñ koy dàq Macky Sall la fekkewon mais bi mu génnee merewul Macky Sall parce que un républicain il a accepté que mom amna na lum def moy refus d'obtempérer wala refus d'obéissance envers son supérieur qui est plus qui est plus républicain que ce gars qui est plus républicain que commissaire Keïta bul fàtte guddi yi nga xam ne da nga daan daw dem Padoa fekk fa commissaire Keïta moi, je ne parle pas de Ndiaïlo. Parce que moi, je connais le commissaire Keita Bouyag Doutei. Moi, je te parle de Padoa. Je ne te parle pas de Ker Ndiaïlo. fa nga ne fa la ko nit ñi ñi ko xam barki commissaire Keita Ousmane quand il koy fekk ji kër njaayloo di demander ay conseil juridique di soukou diko ay conseil euh, ci droit diko soukou diko demande demander nan la wara a def diko ko diko demander pour que mu wax ak sa gaay té collègue commissaire inspecteur de police et agent de police Ousmane nit fay am colère. et pourtant un des fils de commissaire Keita mu ngi fii mu ngi dans les pays à côté nek ka nga xamné ne na la ci xaalis ci massification ba tay ji nga ñew nek en avril 2024 y a au sommet de l'État tax dictature ci Papa. Ousmane commissaire Keita il nit sàccul triandewul deful leneen la nga xamante rek Lal pas-pasam mu organiser marche pour ne pour dire plus jamais ça marche pacifique nga séparer ko avec sa famille